conseiller moo ma seet si woon ne ma ah monsieur le ministre man jël naa engagement te laajuma la ko ndax dama dem ci l'école bu njar ma fa yóbbu ay kaye fekk fa problème bu ëpp kaye ndax école bi dañ ko miiréwul te xam nga jaan fu mu jaar day yomb ndax l'école bi dafa jege tool yi ma ne leen nag ah dinaa gis ministre bi li ci war ci ciment dina ko joxe mu ne ma jël naa engagement boobu nag ma ñëwoon xool ba xam loo ciy xalaat ma ne ko xalaatuma ci leneen engagement boobu nga jël engagement boobu lay doxal ndax sa diggante ak euh, amaat Camara bi nga xam ne sama directeur de cabinet dara réeruma ci biir xam naa ne njara tax ngay jóg loo am da nga koy yóbbu njar te looy def njar da ngaa bëgg jàppale président de la république te kuy jàppale président de la république nag soo ñëwee fekk waa PIT amuñu dara lu ñu def lu dul ànd ak ceeg yow tey ñu ñëwoon fii nag indil leen euh, loolu muy ciment bi nga xam ne ñoom moom lañ xayma woon ne moom la ñu soxla euh, waxtaan ak ñoom ñu wax ñu wax yeneen i jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko ak yu ñu bëgg moo wan leen ne nag comme yàlla dafa def ngeen am président de la république boo xam ne dafay déglu askan wi boo xam ne lépp lu muy bëgg mooy njëriñu askan wi nan lañu mën a fexe ba def ko suñ ko bëggee yombalal mbir mi lii nga xam ne ubbi nañ ko muy inscription ci liste électorale yi ni ci ñëpp dem inscrit ba ëllëg bu ñuy wote ñu mën koo jox ay kart yoo xam ne dina ko mën a may mu am kattan am mën-mën am doole pour def ko loolu yëpp ñoom ñoom ñu ànd ci te defe naa ne wane nañ ne ñoom bëgg nañ président de la république jaar fi tournée pour xool li xew fii ci Diender bi yëpp euh, bu ko mënul it bëgg nañu benn bis président la république recevoir leen pour ñu won ko seen cofeel won ko seen disposition wan leen ñaar daal fi ñu toll nii xam nga lu leen sox ànd ak président la république Macky pour soppi réew mi ci yàlla ànd habitude di wax ne bu leen xeebal kenn soxlam te bu ngeen tëngam lu kenn monsieur le ministre loolu la def parce que bi may jël engagement fii ci population Jandeer ak Njar pour jéem a seet nan la ñuy jàppale xale yi ak école yàlla moo ma inspiré rek sama xel dem ci moom ma wax ko ko ànd ceeg fit bu dëgër waaye wolof Njaay nee na ku ñeme dañ laa dee jëfam ak comportement ak doxalinam ak li nga xam ni moom la am ci réputation Sénégal yëpp xam ko ñi ko mës a gis ak ñi seetaan télévision ak ñi nga xam ne président yónnee na leen moom ndaw ñu nekk fa defe naa kàddu gi benn la ci Sénégal loolu jëfam boobu moo ma puus yàlla puus moom ma xalaat ci moom ay mbiram ma wax ko ko mu def ko tey yéen ñi fi teew ñëpp gis ngeen ni population bi wax ci moom gis ngeen doxalin bi mu doxalee loo xam ne méngoo nag ak li ko président de la république sant méngoo na ak li population yi di xaar ci ku ñuy wax euh, jawrin vraiment ma nekk ci à l'aise ci samay biiru mbokk ma nekk ci à l'aise école bi tey jii xale bu ci dugg incha allah yi ci année scolaire bii ñëw di nga am tranquillité dugg fi jàng fi tranquillement ñibbi seen loolu c'est grâce au ministre Mansour Sy ministre monsieur le ministre maa ngi lay gërëm di la sant ci turu population yëpp jafe-jafe ndox yëpp damay commencer ci li ci président def ba pare parce que depuis 1985 mën nañoo jàpp ni problème mu ndox dafa dafa nekkoon lu doy war ci jandeer am na ci ñoo xam ne daan nañu toog lu mat une semaine benn gutu ndox du dugg ci benn dëkk dañuy daw fukki kilomètres ak ñaar di ko wuti da ko mel ni ca dem saar soo demee Mbisaaw gollam tey jii nga xam ni en terme électoral monsieur le ministre c'est le deuxième fief ci résultat yi yow xam ni. bu buñ koy calculer mu ëpp doole ci pour président Macky ay teen la ñuy naan ndox courant du fa tàkk waaye semaine bii passé signé nañu contrat yëpp incha allah rabbi ci fin de mois bi travaux yi dina commencé ñu régler problème mu ndox boobu régler problème mu Kër Matar régler problème mu Bissau régler problème mu euh, Yad bu ñu ko defee nag ñu allégé fii nga xam ni mooy njar ti euh, ak ndaam ak jander ñu war a mën a gën a am ndox capacité forage bi yokk ñu am ndox parce que dinañ toog trois jours quatre jours wala cinq jours ndox du fi dugg parce que dëkk yi dañuy awante par zone soo demee ca dem forage bi nga xam ne quatre cent mètres cube heure la depuis mille neuf cent soixante onze mu am fi Abdoulaye Wade Senghor Abdou ñëpp jaar nañu fi kenn mosu ko équipé mhm. te forage bi rek bu ñu ko liggéeyee war na mën a jël commune bi yëpp mhm. ci président Macky Sall lañ ko defaree mhm. commencé nañu ko defar nañu courant ba ca dëkk bi buñ ci jëmee ci ay fan kenam wala ay semaine wala ay mois ñëw dinañ ci am vraiment euh, long xam ni dina dépasser sax luñ ci séntu woon soo demee bayax forage bu bees tax def nañ ko matériel bi mu ngi jógee fële ci Allemagne lu mat deux cent millions de francs CFA dugal nañ ko ci defar nañ ci ñu ngi séntu cent mètres cubes par heure waaye d'après prévision yi ñu def ak waxtaan bi ñu ci def directeur entreprise bi li am Ouest Foire la ñu bëgg lu mat deux cent cinquante mètres cubes Euh, par heure ci ndox à partir de ce moment dina mën a jël en yeneen dëkk comme euh, Berthialane ak euh, Daara kilomètre cinquante jusqu'à Mbambilor yooyu yëpp pratiquement bokkuñu sax sunu zone waaye dinañ ci mën di xewlo donc li man mënti wax mooy président Macky Sall fàttewul jander te ku xool douze communes yi nga xam ne ñoo nekk ci département de Thiès nga dem ci dëkk yëpp wër ko ci quatre ans yi li nga xam ne président Macky Sall li mu def ci Jandeer barewul ci dëkk yi mu ko def da ngay jógele kilomètre cinquante ba Kayar tali bi dafa neex nga jógee Sangalkam ba Mboro talibi bi yëpp dafa bees te loolu yëpp du ay loo xam ne dañu ko def fi nekkoon at yii la fi gé dugg donc ku def lu rëy waaja dañ ko war a defal lu rëy moom tamit delloo ko ko monsieur le ministre wax na ko nañu dem inscrire ci liste électorale yi parce que nit aussi ku la fi nekkal da nga ko fi war a nekkal te daw te ba ngay am yu tànk yàgg naa di leen ko wax depuis 1960 monsieur le ministre jusqu'à nos jours c'est la première fois nit ci doomu Jandeer nekk dans le cœur de l'État bokk ci état ñu bokk fu ñuy séddale c'est la première fois mhm. man sama pap Serigne Doye ñëpp xam nañu ko ci ñi installé Ablaye Wade 76 78 fii la bokk daan ànd ak Boubacar Sall xeex nañ ci politique ba dee Abdourahmane Ndiaye Falang grand lutteur moo yoroon Senghor yor Abdou Diouf mooy sama magu yaay mooy papa Djibi Ndiaye bii toog lu ne def nañ ko ci politique waaye liñ fi am ci président Macky la mos suñ ko am fen ci temps bu record ba pare jël seen doom teg ci wet waaye 2024 nañu ko gunge ba boobu suñ ko gunge ba boobu ci diggante bi ngeen xool bilan ndax jandeer bi mu fi jaaree am na lu fi yokk wala amul lu fi yokk waaye koo xam ni yee nga ko mu jox la ndekki am na ko ko wax sànq mais bu la da nga reer toogal su suuf jël di ko xaar waaye nag président Macky def na li ko war ak jandeer xëy na am na lu des waa jandeer ñoo des nañu jóg taxaw lu jàppale ko monsieur le ministre ñoom loolu lañ lay yóbbanti ci président Macky Sall te euh, man man maa ngi tudd Modou Bey dëkk fi si Ndiar Tidiane né le 3 5 mois 1956 à Ndiar léegi problème mu ndox bi man ci commission am ndox boobu ci laa bokk mais dañuy jànkunte ak ay problème yoo xamante ni yéeme na parce que dañ ñu wax ne léegi dañuy fay par weer wu dee ñun fay ñu weer bu dee ñun par quinzième la ñuy fay. waaw nee nga fi am na quartier village yu bëri yoo ne nañ toog juróomi lu ñu am ndax. bii si bi ma nekk nii. am na partiment boo xamante ne fii ma nekk wax ak yow nii ëpp na juróomi fan une semaine amuñu ndox tey jii ñu ngi ñëw sama kër di jël ndox en même temps Kër Matar. ñu ngi joxe message léegi ñu ni ñoom it comme ça amuñu ndox ndaam njëgën yàdd moom waxuñu waxam parce que moom moo gën a sori mu ngi ca côté Pout comme que noonu amul ndox yàdd mënut am ndox góorgóorlu woon nañ sax ba forage bii nga xam ne moo nekk fii dama ko fàtte wax Ibrahima bi mu toogee bi ma jël parole forage bi nekk fii jëloon nañu ko ba des doon si def ay jéego sax pour mu jël quatre villages yële maanaam njëgën mbisaaw Kër Matar ak yàdde bu ko defee yeneen jël forage bu defee ñu mën def système pour ndox mi doy mais dañuy dem forage ba la ñu dawal ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi président woo ma téléphone boobu maa ngi tool ma ne qu'est-ce mun ma forage bi xool nañu ko li mu lakk ci gasoil mën ñu ko supporter amuñu poosam ma ne que nga ni mun ma léegi nañ ko dañu arrêté ko fekk dañuy jëndoon ay tuyau defar mbisaaw jënd batterie bu bees dem taal ko mu tàkk ginnaaw sax may leen nag est-ce que xool ngeen forage bi ngeen koy taal pompe bi ñaati mètre ñaati ñaati kilo ñu ne noon xooluñu ko man leen da ngeen waroon technicien nag ñu xool pompe ba xam ñaati kilo la parce que consommation foofu lay nekk ndax li muy pompe day am doole comme que nee ngeen moteur bi 4 cylindres la 4 cylindres mënut a lakk gasoil boobu 50 litres gasoil pour mën ko lekk bu fekkee loolu mu am ne nañ ko fermer léegi bi ñu ko fermer boobu ba jonni yàlla tey fi mu nekk nii Kër Matar Yadde Njëgën Mbisaaw ñoom ñooy aye démb dañu koy ayloo waaw bu kii roosee quatre villages bu ñu roosee tey bu ëllëgee ñu tëj yooyu quatre villages jox ñu quatre villages kon déjà weer weer bi du matul weer 15 jours la muy ay jafe-jafe yoo xam ne moom lañuy ñuy jànkuwanteel guddi ak bëccëg ministère bi nag wax na fi ay wax yu bëri ay yoon nee na dinañ ñëw jàpp si mais ñun yàgg nañu see coow yàgg nañoo cow coow laa ngi ne kur si ñun commission bi léegi waa Ogefor ñoo yoroon forage yi mais waa Ofor la ñu wax ne benn ay canadien yu war a ñëw pour jël forage bi mais ñun gisaguñu kenn ñun pour ñu ñëw jóg ñu fay ñun dara. fay ñunu benn dërëm bi gën a tuut fii la ñuy xëy yàq suñu liggéey dem forage yendu fa ba ngoon nu ñuy bise te duñ si dégg wax ji nu neex kon nag nuy am mètre cube téeméer ñëpp am ko nuy naan moo nu gën a mètre cube cent franc te ñeneen duñu naan